Miss Miss Grain de Miss fu fu commentaire yi toll parce que Kiara pare na pour wax ñu euh, regard euh, ci euh, Ndeppa <laughs> waa kii lu def ni eh Aïda Sylla eh, eh Ndeye Rokhaya Ndeye Rokhaya Mbodj Ndeye Rokhaya eh eh moo yo <laughs> <laughs> non excusez naa sax de li mani wéro wéro <laughs> alors depuis ce matin suñu gars yaa ngi commentaire ah. Euh, waaw commentaire mais man ce que est-ce que est-ce que est que mën nga ma mosal ci li nga déglu noonu non P-Square bu bees laay déglu mais ah! non yaa ngi koy dégg ci suuf. hop hop hop hop hop feccal feccal zé zé demal. aywa. kon loolu nga doon déglu ah. laa doon déglu moo tax gisuma woon euh, wuy ma. waaw koo dendal. mbéjal mu dee. waaw waaw doy na doy na doy na alors qu'est-ce qu'on a comme commentaire avec nos amis. man sa livre bi jaaxal na ma. moom ma gàddu ko parce que commentaire damay répertorier yi gën a intéressant daal di ko bind. vas-y. alors aujourd'hui sur la ah, page Facebook de Yeewu Leen on parle surtout de Kiara. Ouais. avec son dëpp. alors euh, Pape Aya Diop nee na ça me fait beaucoup de plaisir parce que ma mère est lébou. Euh, merci Chiara et bonne continuation à toute l'équipe. Moustapha Diagne nee na comme disait sa mère Sénégal amul couvert mais cool ça montre que sunu gaal moo dàq ci àdduna Seydou Yoro Konté daal di ne je ne crois pas à toutes ces choses là alors euh, abi yi ute nañ ku nekk ak li nga xalaat mais sa yeewu ne non tout le monde doit être. on alors euh, Khadim Diakhaté nee est-ce que ndëpp nekkul ay xërëb. On verra. questions qu'il pose. J'espère que vous allez répondre sur le plateau. Mm. Mansour essentiel à nos coutumes pour guérir et exorciser. Ah. Je pense que Pape Cheikh devrait en subir un. <laughs> Pape Cheikh yow da ngaa soxla. <laughs> man de su ma daanoo xam nga man samay rab eh, samay samay rab eh, sama rab la. Ah. su ma daanoo. yow <laughs> wala oh, light. <laughs> taalal ma. Aminata Gueye moom nee na Kiara bàyyi ndëpp moom pour moom ndëpp eh, lu mu xam si ndëpp Kiara mii du dellu Italie. <laughs> Euh, lui il dit que tu ne retourneras pas en Italie comme que maintenant tu en train de parler du ndëpp sénégalais du ndëpp euh, Sidi Yahya Diouf Kiara je vous encourage les découvertes et connaissances n'ont guère de frontières. ouais. alors euh, Dija Alicia Vivi Diallo nee na neex na kaa xamuma ci dara. Mhm. et là on dit que Kiara kii euh, wax si. comme ça li woon sama livre bi sonal na ma. tiinu séeréer <laughs> toujours El Pistolero Ndiaye nee na le ndëpp est un fait réel et fait partie de la culture sénégalaise. Merci. et s'il vous plaît protégez ces sites. j'adore la partie fitness big up à toute Boy daal Kiara extraordinaire avec ses recherches. bijou je mhm. t'adore yéenay bomb ku mu neexul toppal fële. kese livre ah. a jël sama temps ah. nga na benn ci des. ayca Khadija Diawlaay Kiara. Euh, Euh, j'en profite. Merci Chiara, il y a profite pour euh, passer le bonjour à toute la communauté Lébou. Pour le moment, euh, Lila Alem sélectionnelon. Il y a plein de messages aussi pour. Euh, on peut pas tout lire, mais on fera le maximum pour jàllale yu bëri quoi. maximum. voilà et désolé pour euh, suñu mënul jàllale yëpp xajul ci biir émission bi. voilà mais dinañ ñëw tout à l'heure pour souhaiter joyeux anniversaire à aux internautes aux téléspectateurs. voilà c'est super alors euh, léegi ki ngay ki ngay ki ngay ki ngay ki ngay ki nga dendal noonu di ko pes ah. waaw euh, moom bu jógee foofu. Ah. bu fekk jee madame Bey. Ah. da ko ci tegel yeneen pes. billaay dina ko doon voilà donc madame Bey laa bëgg nga jéggalu ko ci dóor yi ah. non madame Guèye jéggalu naa la. voilà madame Bey ñu ngi ñu ngi jéem. dootuma ko dóorati dégg voilà Pape Samba. Euh, eh, doo Pape ok ko at bi. yee pesal. <laughs> on te retrouve on tout à l'heure pour la suite avec les internautes toujours en contact direct avec vous soit téléphone bi ngeen dugg ñu may leen xaalis parti bi euh, ku dugg